réew dafay torlu à des moments moment historique boobu lañu ñu toll. Les Patriotes TV. ngeen gis ko noonu mu téye pistolet ci loxo bi nga xamante ni moo di loxo droite bi kii di Mamadou Lamine Massaly nekk ab homme politique nekk foofu sa cees mii ñoom ñii nag nga xamante ni ñoom ñooy wuyee ci turu F24 daal di koy porter plainte foofu sa commissariat central bu Thiès ñoom ñii nag ginnaaw bi nga xamante ni doon nañ jàkkaarloog tey ak taskatu xibaar yi vidéo boobu ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi sax mën ngeen koo seetaan seen seen bi les Patriotes TV ndax doon nañ ko def direct lien bi nañ leen ko def ci pëlëwér commentaire bi ci vidéo bi yi ngay seetaan nii Mamadou Lamine Massaly bi nag si manifestation yi nga xamante ni moom la ñu génn vendredi ba la ñu passé yemoo ak juróom-ñeenti fan si weeru février 2024 ñu gis ko muy dox si mbedd Thiès yi yeeroo benn pistolem am ay nit ñu mu àndal dox ba mu yàgg sax mu daal di sëgg mel ni kuy for xeer naan dañ koy joori ñi nga xamante ni ñoo di ay manifestants yi ñoom ñii nag liñ koy toppee nee ñu daal mooy trouble à l'ordre public waaye tamit yoore pistolet di ko joori ñi nga xamante ni daal ñooy ay manifestants te amul si benn droit amul ci tamit benn digal loole lañ koy toppee waaye ñii nag doon def conférence de presse tey mën nañ ne balaa conférence de presse bi da jeex sax ki nga xamante ni moo di lu Mamadou ma sali naroon leen tontu si li nga xamante ni moo di presse boobee waaye laataa mu koy def sax mujj nañ ko woo foofu noonu sa kanamu yoon sa commissariat central bu Thiès.